di nuyu Boss Media yi nga xam ne sama waay la on a ensemble mu nekk université nekk jeune bu ambitieux jeune bu gëm boppam jeune bu xam fan lay teg tànkam donc on a débuté ensemble ba mu ngi jàpp fi yàlla ko ci yàlla jàppale yàlla taxawoo ko ci ak bépp étudiant yaa ngi entreprendre boo leen xoolee ci man rek bu leen découragé donc voilà voilà étudiant bu xool ci man bul découragé non étudiant bu xool ci man rek waroo découragé donc on vient de très loin je mi taxaw xam na fi may wax on vient de très donc bépp étudiant bu xool ci man muy jaaykatu café gi muy jaaykatu yére bi muy defar defarkatu dàll bi muy ki nga xam ne da nga xëy di jàngi dis-toi que tout est la vie yàlla moom moom moo yor ay wërsëgam rek ak fu ko bëgg a jaarale te foofu la ko jaarale incha allah di leen kontaane waa sans limite di nuyu sénégalais yëpp di leen siyaar baax a baax di nuyu maa ngi nuyu sama mag Marème dafa bëgg a bës moom dafa bëgg a feeñ di nuyu Jaba day wax sénégalais dañu xaar album bi non extraordinaire extraordinaire wax dëgg fa yàlla extraordinaire oh. barke Dépôt Pulo. Thiès extraordinaire. am leen jàmm. <laughs> merci